fi ñu toll diggante boobu ba léegi fi ñu toll man dew ma dëpp ma xamoo ci lu ma ne. xoyantaan ci wàllu succès ak ci tur foo xam ne. benn waaw yokku na la lu bari nag moom. loolu laa nekk di wax ma ne. suñ bëree woon. passé naa fi ma nekk nii ah dootuñu wax Baye Mandione keneen la ñuy wax loolu laa nekk di wax. olof nag nee na ragal féete day xañ war parce que man boo demoon Gambie fi mu toll jonoon lu ci yëpp man lañ bëgg ma daan Baye Mandione. kon ba ah, kon kay xanaa ah, da ngaa jàpp ne ñii dañoo faral Baye Mandione su doon Sénégal yi. mën na nekk man ragaluma loolu. non ndax looloo am wala déet yow loolu nga gis. dama ci gis ay àtte yu xaw a doy waar rek. ndax da ne journaliste dañoo faral yu Gambie yow lañ faral est-ce que Sénégal bàyyi ma ñoon lañ faral. non waxuma man lañ faral da xamoo far yow dama am yaakaar ne dama am yaakaar ne li ma yëg sama yaram ne Gambien yi fa nekk nekk ay sunu xam naa yaakaar ne ñëpp man lañ yéene ndam dama ko yaakaar rek man na bañ a ne sax dëgg de parce que doomu aadama melul nenn ba nga amoon keroog Gambie. jàpp nga ne que mobilisation bu toll dana am sa digganteeg Mama Ndione fii la 25. lu tax man fii laa ëpp supporter. fii nga bay dina leer. dama wax sax ma ne convoi yi war a départ Gambie ak yi génnee Saalum sax bugguma ñu dajee dama bëgg convoi Gambie dugg wala bu Saalum dugg bu Gambie doog a dugg. loolu laa bëgg. mais sa digganteeg Baye Mandione dina métti de kon. ah mën naa ne. ñi départ Gambie ak Saalum. bëgguma sax ñu dajee dégg wolof de doo bëgg ñuy déparé Gàmbi dugg ñuy déparé Saalum dugg loolu laa bëgg laa wax li ma bëgg xamul yàlla lay dogal nag loolu laa bëgg am naa ci droit de ah. maara ban maara ñaata waaw waaw say maara say maara sëriñ si lay ñaanal ñaata lañ loolu dama ko xam daa gàmm daa bëri ah xaw ma ko yow mi xuy bëri ngay sëriñ di xaw ma sëriñ bu ondaret xaw ma ko te amul amul benn mbër bu la mën a wax bu mën a toog na la ñaari maara ñoo may ñaana wala ñetti maara wala ñeenti maara amul mbër boo ko gis ci mbëri mag bu ko waxee boo ko ñemee yota ko ci suuf na ko du dëggal boo ko ñemee laa wax de man kéere boo xam ne Modou da ciy ñëw roi des arènes Sénégal ak Ama nga war caa bëre ferte la ferte la waaye man damaa toomu damaa tàmmu coow da ngeen xamul rek la xew bu ngeen yaakaaree ne dofu wàcc laa fii du ma jàppee dof du ma dof bu wàcc fii damaa càmm coow ñeme coow boo xoolee ak kii may tegal baa mi ñoon nga xam ne kii coow yëngalu ko ndax bu mënoon nitu coow rek ak ku ragal coow rek heure bu ma indilee coow rek ma coow ak moom làmb ji yàqu démb rek bu ma neexoon ma yàqu démb démb rek. da laa def da laa tooñ démb. waaw yow xanaa eh, eh, kii nu mu tudd Irak fii sax déclaré na ko démb. guerre Irak Irak. Irak man maa wàcc rek tëdd mu wax lu ko neex. mais promoteur bi day mel ni man dama ko yërëm des fois parce que promoteur bi day mel ni yéen ñaar seen combat moom da ci am naan xujju di leen ni ku daa dugg ci lu ma jamaykee. manul ñàkk nag gis nga doomu aadama bu ne war nga pees sa bopp a jàmm. promoteur Amin ku la. Euh, kii euh, ay gars fii nekk ma leen seetaan ñëpp ay promoteur la waaye ñoom ñëpp ku ci nekk tey buñ la peese woon yow ak mbër mi war a bëree différence bi du bëri. ci poids léegi mbër moo xam ne yow boo xam ne ma doon cinquante kilos bëgg a boole ñu mat cent vingt kilos ñuy dóorante coono dina la ci fekk. ak ti a <laughs> ah, sob de dafa <laughs> sa combat ak ma ñoon yàqu. xanaa bi yoon nag. cooki dina am bëri dina am jël dina am. mën naa yàqu sax de. nga jor nga njort loolu mën naa yàqu. su fekkee su fekkee nam doon yàqu fële lay yàqoo mën naa yàqu fii teguma dara ci suma gannaaw gi pour luy yàq te butéel yi ma daan laal pour laal ko danaa ko laalaat fii ndomba yi ma doon takk danaa ko takkaat fii gis nga yàqkat bi mënoo ko deferal deferu leen seen toogaay yi ku bëgg jàmm ku ne defar sa toogaay Double seen coach la fa andi coach ab Sénégal luy coach ah, coach coach coach Sénégal xamul ñëw de buuxante foofu ba dóor suñ njiiti police bi. police ñoom kuñ xeexaat police lañ doon xeexaat bi du ma poñe njiitu police bi dóor ko. kooku alam def man mii war a bëree grand combat su ma ko defoon fii gendarme yi dañ maa tëj dañ maa tëj duñ ma basax ma bëree fañ maa yóbbu noonu léegi nga ñëw di dem dóor njuutu police bi gars yi jàpp koog di ko dóor mu dem xool ko ne bu xaañ nañ ko moom du bëree. te duut coach bi sax ki war a toog ci toogum bi de parce que mu ngi mel ni man mu ñëwoon tey indi suma coach bi Gambie indi sama manager Gambie mu war a contrôler licence yeeg bagages yi coach bi war a ñëw toog suma toogum coach coach Gambie mën naa toog fii si toog Sénégal xam nga mante ne léegi suma coach Gambie ban doole la am fii est-ce que dana dugg ci biir stade bi sax ah ban ban doole la am pour dugg pour pour ñëw ba war a toog fii bay poñe parent ba koy dóor mbaa am nga ko lay toogal fii mbaa ma fii coach. man igri laa boobu. moom laay laaj. xamoo ko. Père Ndongo Cissé da nga wax. waaw sa gaam bi. fii. fii da nga fay bokk ak bo da ngaa yaa ngi ca de. jeex na kan moo war a toog si toog bi. Ah, kon am nga licence wax nga dëgg. ah kon xanaa mbay booyooy toog. ku amul licence day bëree Sénégal. moo tax ma ne kon mbay booyooy toog. tax nga may laaj am nga licence. sa entraîneur laay laajte sa coach. boo xiifee boo jooy nga dem reer yi. xoyantaan mi man de xoyantaan mi xanaa tey benn ndongo si da koo joxul mu ne abati ba de. islamiyee ñaare bu ñu amee compétition fii Sénégal dañuy def seen bopp bopp xeebal wala sot dañ leen sot wala dañ leen xeeb loolu gisoon nañ ko Gambie est-ce que tey ñëw ñëwaat tey Sénégal war a bëreeg Baye Mandione indaale mentalité boobu est-ce que mënu la maanaam mënu la wàññi ci lu bari. waaw am nga ñu fi ñëwoon mën nañu nekk ay xale. ndax ñi fi jaaroon man li ma jàpp ci sot rek mooy nga dugg ngëb suma tànk yi te foog naa loolu doo am xanaa leneen li ci des nag coobaree doomu aadama la yàlla moo desin doomu aadama teg ko daraam matut lépp a manqué ki nga kër gi nga juddoo sax am na koo xam ne bokkut ak yow jëmuwaay am na wala amut dooy gis kër goo xam ne ñi dañuy far bàll ga ñi muurloo ñi xoyantaan man ma jóge ko Gàmbi ñëw sant Baye Mandione fédération bi lu fa lu fa ne ak ku far ak arbitre bi far ak Baye Mandione yooyu yëpp su ma yoon nekku ci xam nga lu su ma yoon nekk mooy li nekk ci sama bopp bi mooy bëree ak Baye leneen li arbitre bay def loolu dafa des ci entre arbitre bi ak ak nit ñi après parce que lu nit def rek bàyyil xel ne image mu koy wane nit ñi danañ ci wax te man nit laa ku dund làmb loo ma def lu teguwul si yoon su ma paree comme nii rek laay defaat wax ko bàyyee ko nag askan wi ñoom ñu atte ci xalaat ci jëf ci ma jaar fi ma war a jaar waaye bul foog ne danaa xenu dara da ko ëndaale fii naan diw mi daf ma bañ wala diw mi ni ko bu ngeen ñëwee fii bu ngeen ñëw du ma leen fay ma wax ak yéen du ngeen teg toog bii ma ñëw da ci toog te fekkeewu ma bi ngeen koy teg damay indi sama toogu bopp du ma leen wóolu ci dara waaye dama doxewul loolu xam nga lu may dox yow a xam nga lu may doxee mooy lépp borom bi moo ko yor li yàlla natt ne mooy am fii mbindeef mënu ci dara mbindeef dara man la. waaw léegi léegi léegi pour jeexal. Euh, combat bi mën naa gaaw. combat baa mi ñoon bu yàgg de li ma koy seetaan bëriwul waaye man nag moom temps bu ne jëli naa ko waaw boo xalaat jëli naa ko ci bëre waaw. bu. maanaam bu xeexee ak yow. ah peut jamono kay dem tëggul lig euh, euh, simple bi waaw ma ne tëggul lig simple. maanaam yéen ñaar kan moo dàq xeex kon. loolu nit ñi ñoo koy wax man kay xeex dara laa ci morom. bu la tegalee raag léegi nag. ah xanaa jéem a taxale rek. waaw loolu wóor na. ah bu taxul nga ñibbi rek. waaw booy ñibbi ma dina neex. man naa neex de que xeex rek du diina. xeex rek la de. xeex bu xeex bu doxul doo seeti bëri. bu bëree doxul nga seeti daw. daw moom mënta ne. ah man naa ne de. daw rek daw rek 100 yow di nga wane ginnaaw di daw. ay lu ne mën naa am ci làmb ji. yan ñoom ngeen da bàyyi bu ñoon damay rey ah déet waxuñu ko de xuy waxuñu ko nag xuy nag xuy nag bu nu bu nu wax lu nu waxul nag ah. bay yow balaa ñuy commencé lu nu ngeen wax waxuñu bàyyi bu ñoon da lay rey de ñëw naa fii di yenu weñ nga attanu ko ngeen naan yow weñ nga yenu attanu ko bu la bàyyi bu ñoon nga bay lekk la gis nga xuyantaan mi nag ndekete xanaa xuy nag mataar mataar nag waxal ak xuyantaan mi yaa ko ah, wax ak moom xuy na li muy def baax na rek ba boo pare wala pare xuy fii nga dëkk yaa ngi dégg fii nga dëkk nekkoon nga fii écurie Fass nekk nga école bala Balla Gaye nekkoon nga fii di daan liggéey ak Babs production est-ce que yaa kon maanaam fii ci réew mi nga dëkk kon fii jàppal ne tamit bu bu bu ñoo ñun yow baay Baye Mandione xam nga lu ñu ci souhaité combat bi am ci jàmm réussir que le meilleur gagne lu loolu lañ ci ñaanaa yàlla xam na ko. yow bu may nekk Fass boo yaa ngi toog liggéeyoo rajo defoo dara liggéeyoo télé defoo dara waaye boobay doroo licence di. kan man ma barke alxuraan man bi may ñëw Fass dama ëndaal licence. man géejawaay sëri moo tax ma entraîné Fass. xuy daal xuy daal bu bëggee dëgg-dëgg jamaïcain bi nag wax dëgg yàlla xam naa bu dee cinquante kilos lay peese ak lu mu mënta peese moom xam naa ne sa communication wala sa siiwaange a ah, bu ko fekkoon ci fukk yóbbu na ko ci téeméer moom. macha allah fu mu ko yóbbu moom. jam hmm. waaw jamit yokkal nga ko lu bare bare ndax yaa ko tax mu mu mu mu mu am doole bu rëy biir Gambia. waaw déet ak fan. ak Sénégal. waaw adduna mooy doxee noonu. jam bañ na de. adduna mooy doxee noonu kenn du dem bàyyi kenn kii fi ma ko yóbbu mën na dund ba dee du fa demaat waaw te bis boo déggee ne bana ma dama la ko wax de ngeen dégg ko de bu la bàyyee bu ma bàyyee dina ma jëliwaat waaw moo tax mu lijjanti ba combat bi am bu ma dina ma ñëw jàpp si daa mel ni am na lu mu waxul de waaw du ko wax lu xew de yéen ñaar rekk ko xam du ko wax mu ne bàyyente ngeen dana leer ah. dana leer <laughs> da ah man xaw ma loolu man maa nekk nit koo xam ne lu ma la wax. mais léegi fii la dañuy jeexal boo jógee ci ma Mandione léegi bu fekkee yàlla dafa dogal parce que xamuñu kuy daan boo ko daanee wala mu daan yow boo ko daanee tey boo daanee boo ko daanee ngay wax. waaw da ngay laajte da ngay bu fekkee da nga koo daan fooy dem. waaw waaw bu ma ko daanee. waaw su ma daanee Baye Mandione ba wàcc ko. waaw danaa la wax fu ma bëgg a dem. doo génn Sénégal. dem fan. da ngay continuer enfoncé. waaw. dama yow daal dëgg la yow yow boo déggee kay wisa Guinée Bissau kii lu may dem ambassade di ñaan Guinée Bissau may wut kay moo dem gam mi nga nekk di bëree ñoo nga Sénégal bëree am benn combat am benn victoire bàyyi ñu ku mel ni bàyyi ñu woon doo yóotu leneen lu ko gën a dama koy boole nag damay am combat gam mi am combat fii su dañ ak dogal aller retour gars léegi nag li ma bëgg mooy waaw kontaan nañ ci yow waaw mayit kontaan naa ci yéen sant waa ak làmb yëpp di wax ne làmb ji na ñëpp ñëw stade teel a fees promoteur bi gis si boppam sponsor yi ñëw jàppale ko ci fan yu néew jox ko xaalis bëri ndax buñ bëree ba pare ñun ñi ñëpp kenn ku ne mu mosal la dara ndax dafa baax di liggéey ak mu gis boppam ba gisaale la waaw bu gisaale la bu gisee boppam ba gisaale loolu daf ci daf ciy neex lool eh, di leen gërëm yéen ñëpp sa waa ji déglu woon naa ko waaye dama ko xaj woon. di ziar di ziar ñëpp ñuy seetaan programme bi am na solo di gërëm. xoyantaan xam naa ne interview bi moom bu leen euh, jàpp leen na communication la rek ñun ñëpp bokk réew mi Gambie ak Sénégal benn la euh, lu bare ñu boole te si làmb ji ñaari mbir tax na ñu jël combat bi mooy euh, suñ diggante ñun ak Sénégal tëq-tëq bi fa ne si comme ñaari combat yi Double Tyson ak Baye Mandione dafa war a leer ñu wan nit ñu ne newut arbitre walla nit mooy tax ñun duñ am ndam beneen bi mooy foog ñu wane wan Gambie Sénégal ne xoyantaan miñ xamoon mu toj Saalum toj Siin toj Gàmbi moo paree dugg Sénégal daan ma Mandione jàkkaarloo ak Modou loolu mooy suñu tagge Modou Lo ngeen bëgg a jàkkaarloo waaw roi des arènes yi Gambie roi des Sénégal te jam laa ko indi mu tëgg ko wala Saalam ngeen ne ngay waxe fi ngay toog ni la Modou Lo di entraîné ba baax na arène nationale lañ ko bëgg a tëgg si kàttan yàlla beneen bi ma wax mooy Gambie Saalum ñu nekk fii waajtaay bi ñuy waaj dama bëgg ñun ñëpp ñu préparé lépp lu luy indi nit ñi ministre de sport Bakary Badji with the National Sport Council ak Gambia government président Adama Barrow dinañ si jàpp pour képp ku bëgg a jógee Gambie pour mu ñëw senegal ñaareel bi ñu si tegu mooy mbir mi du senegal ak Gambie la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay waaye nag drapeau yi Sénégal Gambia mooy mooy naaw ci kaw Matar Ba dina teew Bakary Badji teew suñu mënoon ñaari président yi ñooy teew parce dafa am. émence bu garaaw buy génn bés yi on the 25 liñ si tegaat mooy eh, fu waaye mën a jóge na am yar am teggin xam ne koyantaan mooy bëre koyantaan mooy bëre ak Baye Mandione na ñoom ñaar xam ne làmb ji moo leen boole ñooy maye xaalis lépp luy règlement CNG bi bi ñu tëral fii ci Sénégal bu ñu doon dogal sa baaraam sax nañ ko dog pour komba bi am ñëpp kontaan ñëpp am mbégte ñu delluwaat Gambie parce que li ñuy indi dafa bari si ay nit te ñooñu yëpp pour ñoo war a aar leen seeni i euh, wér-gu-yaram seen i bakkan seen i alal kon suñuy ñëw fii ñëwin bi dafa war a jaar yoon ba nga xam ne képp fu waaye ne na amee yar am teggin xam ne sénégambien daabi la xoyantaan ambassade la si diggante ñaari réew yi kon su ko defee rek ñu ngi leen di gërëm sant leen di gërëm jamee kan di gërëm ñëpp ne waxtaan bi euh, loolu rek lañ si bëggoon a yokku asalaamaaleykum wa rahmatulah yem ma te du ma mos a yem promoteur bi sax waaw bëgguma mu yab ma te du ma mos a yab damaa bëgg Saalum tout ñëw jàpp ma benn dëkk nag Saalum rek laa wax Saalum ba Waalo na ñëpp ñëw.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 kon nag mbokk yi dimanche 19 décembre arène national système pay-per-view fukki combat benn tàkku Tapha Tine takk ci rib booy Niang numéro 2 le Chapacholi Tidiane Faye le professeur de l'Ansar ak Alioune Seye ak yeneen juróom-ñetti combat pay-per-view rek ngeen ko mën a seetaan ci 3W point